fonde fonde jàngi aywa fonde fonde ñëw naan ci fonde gi waay ay waay aywa fonde waay aywa fonde salaamaaleykum yaay booy jéem a fonde waay ah sama doom yaru nga de macha allah indal da ngeen yaru macha allah d'accord ñaata nga ah, nga def tuuti sow fekkee am na waaw d'accord sow am na kay may tuuti yéen moom xale yaru ngeen salaamaaleykum yaay booy démb moom kontaan naa trop sincèrement safante bi neex na saf na sap dama cee dóor ba gàtt. ah kontaan naa bu baax a baax a baax fonde bi dee gis nga noonu laa ko defee rek bëgg rek ngeen bëgg yéen a baax ba yéen ay xale yaru ngeen ba ma ñëw fii ba léegi yéen a ngi jënd waaw kontaan naa fii dootu ma fi bàyyi. billaay nag fonde bi dafa neex tey moom defal ma 500 comme ça su ma reeree su ma xëy su tamit nekk ji ndax fonde vraiment dafa neex ah kontaan naa trop. kontaan naa trop sama xol sedd na waa baax na xaamal defaral la dégg nga yéen moom xale yaru ngeen macha allah ah xale ñoo yaru ah dañuy jënd te amuñu benn problème yar nañ leen bilaay Sénégal xale yaru nañ lii moom fii moom dootu ma fi bàyyi defar suba ñaari pan naa defar ndax jaay. salaamaaleykum xale bu ñaaw am nga fonde. ah yow ba nag yow ñàkk nekk sa de. yow man dama la nduru xale ah man nga xam ne mag naa la yaay boo wax yaay tamit nga ne ma mère waaye du ma xale pourtant wax nga dëgg de ak sa kanam gu ras gi yow kay ku la xam ne mère ancien temps nga temps yi Senghor la gone gi nag réew nga doon nag xaw ma dëmb doon waaye dama nekk sa morom yow gën a ma eh, banaa banaa ma taay Senghor yow ah mère nag baal yow nag baal yow nag yow nag sa kanam gu ras gii ah xool sa bakkan bii nott bu mel ni doomu guro ah xool sa xeetu coiffure bii nii xam nga ne lii ko xool nga ne taa Mamouz Ka la yow nag yow ak a maase nag baal nag jaama fonde yow nag sa réewaan na nag foog natt nag weesu na nag dama a nag sa morom waaw man wax yaay de wax mama xale bu réew nga ñaata nga bëgg comme fonde laa la wax non fonde moom jaama fukki rek sànq naa reer quoi jaama fukki dërëm rek xamoon naa doo jënd lu baax fonde fukki dërëm nag amul fonde 150 moo am 200 yéeg kaw nga jaay fonde fukki dërëm xale bu réew nga yow nag meer xamoo sa bopp de ak sa gimiñ ko nokk ba am fëgg ndërëm ñu leen ne la jaam fonde nga jaay naqit dara ak sa weexaay bi nga mel ni sikkatu ay xale bii yow de xaaral jaay la nga dem ndax yow boo de dinañ ma tojal yàqal yàqal ma sama sama jaay mi xaaral jaay la ah mère mère fonde moom ndoxee na de

may wax nag nee na daan yaay daa paccal dangal di xesal lii daal ba mu daal di jaay fonde gis nga ba bëggee tee mu neex te bu rafet tee boo xamee dafay nes nesi macha allah da ngay jël dayu xaj nga boole koo crit di ko diwoo loolu de may tee bu macha allah dégg nga lu ma la wax jàppal loolu xolal man nag maa ngi dem nag au matin sa bakkan bu dañuy fonde lii fii paragraphe yi dootu fa ñëwati